bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin uh, mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen gërëm ci jataay bi ak sàkku gi ndax def di buntub xam-xam ku ko ubbi uh, ñëpp ameel nañu la ak cant ndax dafa mel ni yàlla xikma euh, bi mu def ci doxinu àdduna mooy lépp luy jariñe tey wala ëllëg dafay tegu ci kaw xam-xam kon képp ku ñëw ubbi buntub xam-xam ci wàllu gëstu ak di ko laaj mbaa mu di si yëngatu dafa mel ni kon nit ñëpp ameel nañu ko njukkal ci euh, ubbi googu mu ko ubbi euh, léegi fan ya weesu kon ñu ngi doon waxtaan ci siira yonente bi sallallahu alayhi wa Euh, tey di waxoon ci njëlbeen gi ni euh, yàlla bi mu bindee mbindee fii leen bind ngir ñu jaamu ko jaamu googu da daan yónnee ay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi nga xam ne mooy ngeen ji di mu jóg yonante yi li nga xam ne moom la indi ci la tax nit ki nekk ci àdduna ak ci àlaxira ci biir xam li mu andi nag jàng ay jaar-jaaram ci laa waxee ni saxaaba yi ak ñi jëkkoon a gëm topp nañ dundub yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci ak juddoom fa jaar di nàmp ak la fa xew euh, fi jaar ci ak ngoneem fa jaar ci tàmbalim yëngutoom ci wàllu addina mi wàllu commerce ak di sàmm ak yeneen ci aju la lépp lañu ci jublu mooy euh, da di léppam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am njàngale la moom nit war na caa mën a jariñu euh, ñu waxtaane woon ci jamono yi ñu weesu yonente bi ak njëlbeenu woote ak saxaaba yi ko jëkk gëm ak li ñu daj ca gëm ga ñu ko gëm ci bunduxataal yooyu ñu ne doon bunduxataal euh, kon tey dañuy jàll ci ni bunduxataal yi yemul rek ci jëmmi euh, saxaaba yi ko gëm waaye jëmmi yonante bi ci boppam moo jëkk a ak bunduxataal yi ñu ko daan bunduxataal ak coono yi ñu ko daan euh, sonal loolu lépp ab jullit di ci jànge ni adduna li yàlla di wax ci alquran ni fa siiroo fil ardi fanzoro na ngeen di dox ci suuf tey setantal kayfa kaana xaaqibatul la ciy teg mu kasi bi na wala munsari ne muy tekki ni doomu aadama jamono bu ne war nañ xool doxinu ña ko jiitoon fépp foo xam ne nit jaar na fa jàll boo fa jaaree mu wóor lan ndax walan tajida ji sunnatillahi tabdilan comme ni ma ko waxoon ci gannaaw xam ne nit jaaroon na fa ay pakk ci yoon wi mu xam ne bu fa jaaree pakk yaa nga fa di ko xaar ndax walan tajida li sunnatillahi tahwilan te it yoon woowee nga xamante ne mooy yoon wi yonte bi doon woote saxaaba yi gëm ko jànkonte ci ak lañ ca jànkonteel ba jamono bii ñu toll yoonu yàlla fa mu nekkoon fa la nekk képp ku jóg jaar ci yoon wi lu mel ni loolu ñu doon jànkonteel da nga ko jànkonte waaye nag bu fekkee xam nga fii ñu jaaroon ak nañ ku muñe woon ak résultat yi ca mujj dana la man a dimbale ba loo mën a jànkonteel da nga ko mën a muñ tey xool sa tey xool résultat ba ci war a mujj loolu kon ci ma bi tax ñuy nettali bu ndoxataal yi ñu doon bu ndoxataal saxaaba yi ak di ko bu ndoxataal yoon tamit sama sama ci la bokk léegi euh, kon wax naa lu bari ci ay saxaaba yoo xam ne jaar nañ ci ay jaarale lu bari ñu bu leen sonal leen waaye yemuñ foofu dañoo agg ci jalgati jëmmi yonente bi ci boppam Euh, jaar nañu ak moom ci ay béréb yu baree bari ci wàlli bunduxtal ndax dem nañ ba euh, lañ doon warmaal ku si néew di am lu ñuy ragal ci lu ñuy warmaal ci Abu Taalib bàyyam bu ndaw boobu ak euh, di ko ruuse soxnaam su ñuy wax soxna Xadija yëpp dañoo dem ba xaw koo bët àgg na ci bëgg a faagaagal jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa ñu wax ni kon xurey sin mboolem la doon moytu dafa mujj daanaka bàyyi ko ka wax Abu Lahab te mu doon bàyyam bu ndaw ndax moog bàyyam ñoo bokk benn bàyyi doomi Abdul Mutalib la ci ñi gënoon a metti ay jëflante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk kenn la ci kilifay Bani Hashim lañ ñett ña des daan ragal ña ca des lañu daan ragale ku si néew sax fekku ci woon Abu Lahab moom moom loolu uh, amutoon dara lu muy ragal mu doonoon noon bi gën a tar ci noonu islaam yi noonu islaam noonu it ku dugg ci islaam taxawaay bi mu taxawoon ci ci yonent bi sallallahu alayhi eh, am na luñ leeral leeraloon ca lam waxoon ca jataayu bani Hashim ba ak lam defoon ci kaw safaa muy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wootee ba mu waxee ba noppi Abu Lahab moo jëkk a tontu ni ko tabban lakk yaa Muhammad ali hada jamaatana ndax bi nga nuy woo dara taxul nga du ñu dajale lu dul lii eh, loolu romboon nañ ko dafa mayoon ñaari doom am na ñaari doomam ku ñuy wax ba ak ba ñoom la dencaloon ñaari doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñuy wax Ruqayya ak Ummu Kalsoom jëkk ñuy yónni yonente bi ñaari doomam yu góor yooyu ñaari doomi yonente bi la ñu dencoon jëkk nubuwa gi di ñëw waaye bi yonente bi wootee yonente gi la digal doomam yooyu ñu fase ñaari doomi yonente bi yooyu ñu yoroon ba mu mujj fase leen bi Abdullahi faatoo Abdullahi mooy doomi ñaareelu doomu yoona bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu Abu Lahab daf ci am mbégte lool daal dem ca musrikoon yi Xuraysin di leen bégal ci ni leen Muhammad léegi abtar la abtar nag mooy ku amul dara lu tax ci moom léegi li mu amoon faatu na moom rek ci des waxoon nañ ca ginnaaw it Abu Lahab daf daan topp ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yi aj ak ci marché yi ngir di ko weddi ndax yonente bi bi mu woowaa Qurayshin li man lépp mu def ko euh, te euh, wuy si wuñ ko da cee boole woon aj gii nga xam ne moom la arab yi baaxoo woon aj si ci màkk euh, ak marché bi ñu daan wax marché Ukaab nga xamante ni fu ab arab nekk daana fa jóge ci at mi di ñëw ñu defa daje mu doon marché bi xumba xumb yonente bi dañu woon naa jël occasion boobu euh, pour giir yi arab yi fi daje ma dem di wax ak ñoom ci yonente gi ma yàlla yónni waaye boobu la Lahab la doon ab liggéeyam jaraloon na ko bàyyi liggéeyam bépp topp ci ginnaaw yonente bi saa bu waxee ba ñooñee nar koo gëm mu leen day fan li muy wax dëgg dafay dëkk ak ay mbokkam bàyyi leen yàq na fi diggante jëkkër ak jabar yàq na fi diggante doom ak yàq na fi diggante euh, mag ak rakk maanaam wax a wax daal wax yu ñaaw a di ko toppee yonente bi noonu ci jamono yi aj yooyu ci biir loolu it Abu Lahab mi ngi amoon soxna suñuy wax Ummu Jamil Ummu Jamil moom euh, Abu Lahab gënu ko woon a bañ yonante bi sallallahu alayhi lu yonante bi daan def ci ay euh, lu Abu Lahab daan def ci ay métti diggante ak rek soxnaam soo si ñuy wax Ummu Jamil daana def lu ko jege mbaa lu ko raw ci sonal yonante bi daan jël ay dëkk di seet fii yonente bi sallallahu alayhi wa di jaar ci guddi gi jógee këram jëm ca Kaaba ga mu defa teg ay taxas ngir bëgg lëndëm gi bu ñëwee taxas yooyu man koo lor loolu Ummu Jamil daana ko def moo tax alxuraan ni ba muy wàcc di dal ci kaw Abu Lahabin dañ tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sa yasla naaran zaata lahab daal wa mraatuhu xammaalatul soxnaam soosu nga xamante ne moo doon xamaadu da bi léegi moom moo doon ummu lahabin soxnaam soosu mooy ummu jamil dafa doonoon ku ñaaw aw làmmiñ moom ummu jamil moom lu ne daana ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa di ko fenal di ko duural di sa taal sawaraw fitna ci am ak nit ñi di jeqi ay xare ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wa loolu moo tax alxuraan di ko wooye xamaalatul xatab bu mu déggee aaya boobu wàcc ci moom ak ci jëkkëram abu lahab euh, dafa daal di ñëw ci yonente bi daal di mer mi ngi fekk yonente bi toog fa kaaba ga ak abu bakar mu ñëw yor aw doj wu mag waaye ba mu ñëwee yàlla ci boppam moo tëye ab gisam ba jisul jëm yonente bi ñëw na ba tiim ko moog Aboubacar te gisu ko mu ni Aboubacar ana sa àndale sa ànd sa àndaale bi taxa wax lu ko neex ni su ma ko fekkoon de doj wi dinaa ko nangam nangam taf boobu mu ngi tiim yonente bi sama sama waaye nag yàlla moo gumbaal ab gisam ba jisul yonente bi ba Aboubacar bi Umu Jamil wala ko dañu waaw dañu yonente bi ndax gisu la yonente bi ne ko yàlla moo gumbaal ab gisam ci noonu dem ba tiim mu dend ak Aboubacar te gisul yonent bi la gis ne am na sa àndandoo ba Aboubacar ni càll mu ne ko su ma ko fekkoon sama doj wi ci kawam la jëm ba bi mu wëlbati ko xanaa dafa laa gis yonent bi ko yàlla ci boppam moo moo gumbaal ab gisam ci noonu. mu daan wax ni man de ab woykat laa te waykat kuñ war a moytu la ndax Muhammad ab woykat képp la moo tax mu mu indi ay sajon di di di nu saaga maag suñu jëkkër sama jëkkër waaye daal di woy aw woy daal ne muzammaman asayna yonent bi lañ daan tudde muzammam muzammam muzammaman asayna wa amrahu abayna wa diinahu qalayna loolu dafa mel ni dafa jubloo fayu eh, aaya bi dal ci kawam moo borom këram muy tabbat yadaa abii lahabin mu jubloo wax Muhammad ab woykat la te may itam ab woykat la daal ne muzammaman asayna muy mooy nañu kii di muzammam te yonent bi lañ daan waaye muzammam wa amrahu abayna mbiram bañ na nanu ko wa diinahu xalaynaa diine yi it bañ nanu ko daal di wëlbatiku wax nañ ni bi mu ñëwee ba tiim Aboubacar dañu ko sa àndandoo bi daf noo ŋàññi maag sama borom kër Aboubacar ne ko laa wa rabbi haasihi ni ko giñ naa ne ŋàññiwu la giñ naa ko ci borom néeg bi ni sama àndandoo bi ŋàññiwu leen maa ko bi sha'r waaye taf wala yatafawahu bi ndax kooku di lu ab woykat buy wax ay woy mbaa muy wax lu ci jëm mu ni ko danga koo dëggël Abu Lahab loolu lépp mi ngi ko daan def te fekk ne day bàyyi taxu yonente bi la ndax mook bàyyam bokk benn bàyyi dëkkam di ab dëkkandoom ndax këram moom Abu Lahab ak kër yonente bi sallallahu alayhi ñoo taxoo woon nii waaye noonu ko Abu Lahab daan lore noonu la ko dëkkandoo yi ci desit daan lore moom yonente bi sallallahu alayhi ibnu ishaq wax na ni mbooloo mi daan lor yonente bi sallallahu alayhi wa ci néegam abu ci këram abu moo ci jitoon ak alxakam ibnu abil ibnu umaya ak xuqba ibnu abi ak adiy ibnu xamra al ak ibnu al asda al te ñoo ñëpp ay dëkkandoom lañu woon waaye kenn ci ñoom muccut nee na am na ci ñoo xam ni dañu daan fekk yonente bi di julli ñu jël am seburiit xëpp ko ko yonente bi daan def saabuñ saa buñ ko xëppee sëbburiit moomu mu wut ab bant falan ko mu génn mu génn ba ci buntu ko rek mu bàyyi ko foofu di leen wax ne leen yaa bani abdi manaaf iyeen bani abdi manaaf lan mooy gii xeetu dëkkaale dëkkaale gii ngeen dëkkaale ak man gan xeetu dëkkaale la bu di génnee sebrit mi ñu ko tuur da leen di wax ngeen yéen doomi abi manaaf ana gi xeetu dëkkaale gan la Uqba ibnu abi Muayt ku ku dolli ku ku taraloon la ci mm, aw doxiinam digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu jëlee na ci Abdullah ibn Mas'ud mu wax ni yonent bi mas na julli ci kaaba gi Abu Jahlin ak ñeneen ñu ci ay mbokkam yu fa toogoon ñu ay mbokkam toogoon ci wetu Kaaba ñenn ñi daal di wax ña ca des ne leen kan mooy andi sëburitum gileem gële ñu rayoon am ku dem jëli ko ñu xëpp ko ci kaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ka ko jëli mooy Uqba ibnu Abi Muayt bañ ne kan mooy jëli sëburit moom moom moo dem jëli sëburit moom bi ñu fekk yonante bi sallallahu di julli mu xëpp ko ko ñu taxaw ñu ñëpp di ree ba doomam ju jigéen Fatima moo ñëw jël ndox jël leneen setal ko setal ba mu set waaye yonte bi fa mu sëggoon mënut na siggi ngir taq-taq yooyu ñu xëppoon ci kaw Umayya ibnu Xalaf daana def bu gisee yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koy piis ngeleju ko maanaam am na muy euh, système yi def ci làmmiñam ak ci ay bëtam ngir di def xeetu sabote dafa mel ni moom moom yi muy Umayya ibnu Xalaf moo tax aayab alxuraan wàcc ni waylun li kulli humazatin lumaza ibnu hisham wax na ne humaza mooy kii ŋàññ nit ki ca kaw ñëpp di ko dégg bu dee lumaza nag mooy e, ki nga xam ni da leen da leen di ayibal ca suuf xeetu kii la dal xeetu ayibal yu yu nekk ca suuf ak lor yu nekk ca suuf mooy lumaza e, ibnu hisham noonu la firee ñaari baat yooy ku ñuy wax axnas ibnu shariq as-saqafi bokk na ci ñi daan tooñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko lor di ko sonal moom itam moom la alquran melal ci juróom benn mela juróom benn melo yi mu wax ni wala tuti kulla xallaafin mahiinin hammaazin mashaa'in binamiimin mannaa'in lil xayri mu'tadin asiimin utullin ba'da dalika zaniimin moom Axnas ibnu Shariq la ko alxuraan melal Abu Jahlin daana ñëw Yisaa di déglu alxuraan ci yonante bi di déglu li muy jàng waaye da koy déglu ba mu neex ko mu dem waaye du ko gëm du ko topp du ami teggin du ragal yàlla di lor yonante bi sallallahu alayhi wa ci wax ak ci jëf bu fa jógee dem di tiitaru ci kaw nit ñi moom la alxuraan di wax ni fala saddaqa wala salla walakin kazzaba ko jëkkee gis mooy julli ci xaram bi la ko tere ne ko bu ma la fi rombati nga def julli ndax julli gi ngay julli bokkul ci bokkul ci li diine ji ñu fi xamoon benn bis mu romb ko muy julli ca maqaama Ibrahim mu ne ko Muhammad néew ma doon bu fi julleete daal koy tëkku tëkku ko tëkk gu tar gëdd ko bi mu ko tëkkoo yonte bi daal di koy gëdd moom itam mu ne ko yaa Muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni yow loo may xuppee ne ko yow maa la ëppale fuuf mbooloo fii ci xur wi ñu nekk xuru màkk wi maa la fi ëppale mbooloo ana loo am ba tax nga di ma xupp nee na yàlla wàcce aaya ni fal yad'u naadiyahu sanad'u zabaniya na woo mbooloo ma muy woo ñun danañ woo malaayika yi sawara kon loolu aaya boobu ci abu jahlin moom yi la wàcc ci xuppante gum doon xuppante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis mu ñëw jàpp ñaari cat yi mbubbi yonente poñe ko ba ba bët yi xaw a génn yonent bi ne ko awlaa lakka fa awlaa summa awlaa lakka fa awlaa mooy tuskare ñal la tuskare ñal la mu ne ko mu ne ko ndax da ngay tëkku ne ko wallaahi yàq sa borom dara mënalu leen ma ko ndax fii maa la fi ëpp mbooloo ëpp la fi aw nit Abu Jahlin googu mu continué woon ko continué muy gën di dolliku muslim jële na ci abi xurayra radiallahu anhu mu wax ni abu jahlin abu jahlin dafa taxaw ne waaw yéen da ngeen di bàyyi muhammad fu mu toll rek muy ñëw di fëtam fëtam kanamam gi ci seen kanam ci ci ci fii ci ci wetu kaaba gi comme ni muy jullee bu sujjootee man kanamam gi muy fëtam ci suuf si ci seen kanam da ngeen koy bàyyi rek mu continuer ci ñu ne ko waaw mu ne giñ naa ci laata ak Uzza ni su ma ko gisatee mu def ko dinaa dinaa dëgg te danaa ko fëtam kanamam ci suuf si nee na mu ñëw fekk yonent bi di julli mu ñëw ba mu demee ba bëgg a dëgg ci loosu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu gis mu jekki-jekki di arrière di arrière di arrière di arrière di arrière mel ni ku tiit xamuñ lu ko tiitloo ñu laaj ko ne ko leen damaa gis lu mel ni ngaareel sawaral dox sama diggante moom ak boroomi laaf mu ne lu mel ni ngaareel sawara laa gis mu dox sama diggante moom ak ay jëmm yoo xam dañoo am ay laaf nga xam ne bi muy arrière nit ñi xamuñ lu muy arrière waaye bi ñu ko laajee dañu ne li ma gis daal lu mel ni ngaareel sawara lu rëy moo dox sama diggante ak moom ak ay jëmm yoo xam dañoo am ay laaf waaye booba ginnaaw bi la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni bu ma jagee woon rek malaayka yi dinañ ko jël cër par cër maanaam lépp mu dañu jël lay wax kër al arxam bi bundu xataal yi mettee yonente bi fa ñuy wax euh, kër al arxam ibnu abil arxam fa la nekkoon kooku ak kër la gu nekkoon ci kaw safa mu daan def ñaare ku fay dugg sax da ngay làqatu ko fay dugg ndax bundu xataal yi metti ndax kuñ seen nga fay dugg rek ñu dal ci sa kaw tàmbali laa sonal ci wax ak ci jëf moo tax daw fa dajeeg ñoom ci ludul ak làqatu ndax leeroon na ko ni bu fa dee dajeeg ñoom ci lu nit ñiy gis moom yéefar yi danañ dox diggante mag euh, ndaje yooyu muy def jiisaa ci biir xur yi lañ daan daje di fa julli ndànk kenn du leen yëg waaye yéefari xure sin di leen ŋàññi Saad ibn Abi ci benn waay ba tuur deretam mooy deret jiñ njëkk a tuur comme ni ma ko waxee ci ginnaaw ci islaam léegi nag bu ndox taal yooyu bi mu taree ba tar moo waral yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digal leen ñu gàddaay dem Éthiopie mu xamal leen leen Éthiopie day a buur nga fa boo xam ne am na diini jum gëm foofa kenn du fa tooñ kenn ci kanamam na ngeen fa dem làqutu ji fa kon digal li nga xam ni moom la yonante bi digle ñu gàddaay dem Éthiopie léegi Éthiopie am na ñaari gàddaay yoo xam ne saxaaba yi gàddaay niñ ko dem fa ndax dañu jëkk gàddaay dem bañ demee am fa ab diir ci xisay xisatul xaraaniq boobu yi ñu nett li di wax ni yonte bi bi mu jàng suratu naj mi ba agsi ci afraaytumul laata wal uzza wa manaata saalisatal uxra ñu ne seytaane dafa sànni ci gémmiñam ci làmmiñam mu wax ni tilkal xaraaniqul ula wa inna shafaatahunna la turtaja léegi yéefari màkk yi bi ñu déggee mu mel ni dafa tagg laata wal uzza bi mu demee ba agsi ca sujjóot ba ba mu ne fasjudu lillahi waabudu ba mu sujjóotee yéefari Quraysh musrikoon yëpp dañoo maase sujjoot ànd ak moom daan ni ko nag li ñu li nga doon bañ mooy dii ñun li ñu bëggoon mooy suñu xërëm bii nga gëm ni mën na dara ca yàlla ginnaaw nag reconnaître nga nu ko léegi nangu nañoo ànd ak yow boo sujjootalee te yàlla ñu mën a sujjoot ànd ak yow léegi nag loolu ci sababu moo tasaaroo ba am ña demoon Éthiopie dégg ko dégg ni yéefari Quraysh yi léegi jëbbul nañu ànd ak Muhammad loolu moo waraloon ñu ñibbisiwaat bi ñibbisee ba jub eh, Makka biñ laajee ñu xamal leen ni leen demeewut noonu léegi kon al hijratul ula il habasha mooy loolu kon gàddaay gi ñu ngi ko def ci rajab rajab ci juróomeelu atu gàddaay juróomeelu at ci nubuwa gi bi nubuwa gi amee juróomi at eh, ci lañ gàddaay eh, ci la eh, première mbooloo ci saxaaba yi gàddaay dem Éthiopie ña jëkk gàddaay dem fukki góor lañu woon ak ñaar fukki góor lañu ak ñaar ak ñeenti jigéen Ousmane bu na Affan moo doonoon seen njiit ñoom ñu ñu gàddaayoon dem Éthiopie mi ngi àndoon nag soxnaam Ruqayya mi doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi wax na ci ñoom ni ñooy kër gi jëkk gàddaay ci yoonu yàlla gannaaw Ibrahim ak Luut Ibrahim ak Luut ñoom gàddaayoon nañ ngir jëm yàlla waaye nag Ousmane ak soxnaam soosu di Ruqayya doomi yonente bi ñoo jëkk gàddaayaat ci diine yàlla ginaaw ñaar ñooñu loolu yonent bi wax na ci ñoom bi ñuy demit dañoo rocceeku ci guddi ci heure bu lëndëm lañ rocceeku ngir bañ yéefar yi leen di leen dogale mbaa ñu di leen gàllankoor ci dem googu ñu war a dem léegi ñu rocceeku ndànk euh, dem yàlla dogale leen ñu fekk ci tefesu géej gi booru géej gi ñu fekk fa ñaari gaal yoo xam ne gaal yi commerce lañ euh, ca lañ dugg ñu yóbbu leen Éthiopie ginaaw buñ leen yóbbu bañ àgg Éthiopie la euh, ginnaaw buñ ba noppi la ko waa Quraysh dégg ni am na mbooloo mu bokk ci nit Muhammad yu gàddaay jëm Éthiopie ñu génn di leen toppi moo tax mbooloo génn di leen toppi waaye bañ demee ba ci tefes ga fekk dem nañ ñooñu bañ àggee Éthiopie ñu fonk leen teral leen ñu nekk fa nekkin bu rafet euh, benn jafe-jafe amuñ ko fa waaye li leen tax a dellu si mooy sujjóot boobu biñ déggee ñu ne léegi yéefari Quraysh yi euh, jëbul nañ te jëblu ga dañoo déggee xibaar bi nu mu demeewut ndax bi mu jàngee ba agsi ñaari aaya yooyu dañuy wax ne seytaane dafa sànni ci aw làmmiñam loolu aaya yii may nettali nii dafa am nekk ci ci lenn ci tafsir yi ndax boo demee ci tafsiru euh, ibnu kasir ci mujjug xaj euh, ji surtout xaj ji euh, day wax ni wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiin illa ida tamanna alqa sheytaanu fi umniyatihi fa yansaxu allahu ma yulqi sheytaan summa yaxkimu llaahu ayaatihi aaya bi noonu la waxee ni ni bi bi musuma yónni benn yonente mu jëkk la moo xam ab nabiyu la wala ab rasul la te du am na ay eh, mébéti boppam comme yonente bi lim amoon ci yéene ci eh, yéefar yi gëm mébét yooyu mu doon mébét ba bëgg ko ci xolam ba ëpp moo waral eh, seytaane ñëw jaar ci mébétam yooyu ba tabal ci lam ca tabal aaya bi noonu la waxee daal ni waaye nag la ca seytaane tabal yàlla dana ko dindi ba mu set mu bàyyi fa ay ay xereñam maanaam tafsir tafsiru ibnu kasir ba bi mu agsee foofu dafa andi ni ci alqa shaytaanu fi umniyatihi daal di andi ni yonente bi bi eh, surut nañ ñu wàcce ba mu agsi ci afaraaytumu laata wal uzza wa manaata thaalisatu al uxra léegi shaytaan dafa def ci làmmiñam mu ni tilka al gharaniqul ula wa inna shafaatahunna la turtaja léegi loolu ci la yéefar boobu ñuy wax Salman al Farisi yi occasionné euh, Salman Rushdie mi bindoon ay jamono ca ginnaaw te Imam Khomeini doon ko tëkku euh, ci la occasion ni léegi moom jàng na lu bari ci tafsiri alquran yi ñu wax ne Muhammad euh, daana wax aayay alquran seytaane occasionné ci ñëw wàccee ay aaya ginnaaw bu mu wàccee aaya yooyu ñu dindi ko sànni yooyu seytaane ko ci def bukkul ci li yàlla waxoon mu nag ginnaaw loolu am na te mi ngi ci tafsir yu mag yi nga xamante ne diine islam danañ ci sukkandiku kon amuñ ba fii nu toll ni alxuraan am na ci ay aaya yoo xam ne seytaane moo ko ci def loolu mooy eh, téereb Salman Rushdie boobu ñu daan wax al ayatul al ayatu seytaan yi dañ ko daan wooye te imaam Khomeini déclaré eh, ko rey rek ay million ngi teg ngir ñu fayal ko ndax ab eh, jullit bu murtad dañ ko war te te kii douze pays européens yi déclaré woon ne léegi imaam Khomeini dafa mel ni dafay soññi terroriste yi kon ñu itam nañ xeexee ak moom xeex bi ñuy xeex moom mooy nañ dagg suñ relation diplomate ak Iran muy loolee xewoon ci jamono yaakaar naa du ñàkk ngeen dégg waaw loolu day dugg ci biir euh, xisab araaniq boobu moo war foofu la euh, Salman Rushdie occasionné pour euh, yàq-yàq googu mu doon yàq naka noonu ñi nga xamante ne dañoo gàddaayoon dem Éthiopie it biñ déggee loolu ba ñibbi si biñ ñëwee ba jub màkk lañ laaj ñu xamal leen leen loolu amut ay jaawale la ñu am ak réccu lool ci ñëw gi ñu doon gàddaayug ñaareel gi léegi musiba yooyu ak balaa yi dafa continuer di tar ci kaw jullit yi waa Quraysh di leen bundoxataal di leen sonal ñu dal ci seen kaw euh, ba jafe-jafe yi ba mu jafe ba mu metti lool ci ñoom léegi dégg nañ it ni euh, ñuy gàddaayoon dem Éthiopie euh, najaas si def leen fonk lool teral leen loolu it bokk na ci li metti ci ñoom waa Xuraysin ñu ne nañ sàkk pexe ngir yónnee foofa yable foofa teraanga jëm leen jëkkoon a teral moo tax yonente bi digal ñi ci desaat ci bu bu tartar yi mette ni leen da ngeen war a gàddaay dem Éthiopie waaye ba ba mbooloo gàddaayaat yoonu ñaareel bii nga xamante ni mbooloo dañ cee gàddaay Éthiopie dem Éthiopie moom euh, juróom-ñett fukki nit juróom-ñett fukki góor ak ñett demoon nañ ndax bu fekkee Ammar ibn Yasir bokkoon na ca ndax sikki sàkka di ci ñii dañ ne juróom-ñett fukki nit ak ñett ñoo dem bu ci xamaar bokkee ñu ne bu ci bokkut nag kon juróom-ñett fukki nit ak ñaar lay doon ak fukki jigéen ak juróom-ñett juróom-ñett fukki góor ak ñett bu ci xamaar bokkee ak fukki jigéen ak juróom-ñett ñoo gàddaay ci gàddaayu ñaareel googu dem Éthiopie waaye Xuraysin biñ déggee gàddaay googu ak na leen najaasi yi fonkee ak toppatoo ba mu leen di toppatoo ak war ma ja ñu ne nag ba tey nañ ci taxaw sàkk ci pexe ñu tànn ñaari waxambaane yu am xel muy Amru bnu Laas ak Abdullahi ibnu Abi Rabia booba jëpplooguñ mujj nañ sax doon ay jullit waaye booba ñu ay jullit ñooñu lañ tànnoon ñu boole ñu yaba ñu boole boole leen ca ay ay cadeau yu ñu war a yetaale buur ba ak ñi ko encadré jël ay hadiya yu bare bare jox leen bu ngeen demee ngeen jox ko buur bi ak ñi ko encadré bañ demee ñi nga xam ne ñooy encadrement buur bi lañ jëkk a jox lañ yor ci ay hadiya waxtaan ak ñoom ni leen dafa am ay waxambaane yu jóge suñu dëkk te bañ fay jógee dafa am ku fa feeñ fekk li ay baayam ak i maamam gëmoon mu weddi ko indi fa jeneen diine joo xam ne xamuñ ko suñuy baay xamuñ ko ba tax yàq na fa diggante nit jabaram yàq na fa diggante mag ak yàq na fa diggante doom ak baay léegi nag dañoo ñëw fii ngir yàqal si leen yàqal googu ñu bëgg yàqal si yàq si seen dëkk bi nag moo tax magi mag yi réew ma ñoo nu ngir ñu leeral leen nit ñii ay yàqkat lañ ba ngeen xam ni ngeen taxaw ci ñoom. ba ñëwee nettali ñoo wax ko uh, encadement bi wér boor bi ba noppi fab seeni hadiya jox leen ko ñoo ñuy daal di leen di jàppale ci xalaat boobu biñ demee ba gis boor bi biñ waxee ba bàyyi. léegi ñi nga xam ne ñooy encadrement buur bi fekk ñoom lañu jëkk gis ba neexal leen daal wax buur bi ne waaw wax nañ dëgg de ñii de li ma ci xam mooy nga gaaw génnee leen delloo leen delloo leen fañ jëma ndax lu ko may danañ yàq sa dëkk bi mu wax ne du sukkandiku ci loolu ci lu dul mu woo leen laaj leen ñoom ba dégg li ñuy wax ñoom ñiñ wax ñi ñiñ tuumaal daal di yable ne gan ñooñu fi ñëwoon nañ ma leen andil biñ leen andee buur bi ni leen diine ji nga xam ne moom ngeen yor ba tax ngeen tàggook seen waa dëkk bañanteeg ñoom te taxut ngeen tàbbi ci sama diine tàbbiwu leen ci jenn diine ci diine yi ñu xam léegi diine jooju lan la ka ñuy wax Jaafar ibnu Abi Talib moom moo doon porte parole bi war a tontu mu tontul délégation yonente bi sallallahu mu ne ko yow buur bi ñun dey mbooloo lañ mu nekkoon ci ak réer dañu daan jaamu ay xiram daan lekk medd di def ay ñaawteef di dogug bokk di ñaawal ak dëkkaale nit ku ne kum ëpp doole wan ko la mu ko ëpp doole ci lool yi lañ nekkoon ba yàlla yabalal ñu ab yonent bu bokk ci nun xam nañu ko xam aw askanam xam nañu ak dëggalam xam nañu kóoluteem xam nañu ak fegoom mu woonu ci ñu wéetal yàlla di ko jaamu moom képp bàyyi li sunu bàyyi daan jaamu muy jaamu ay doj ak i xërëm mu digal nu ak dëggal digal nu matale kóllëre digal nu jokk bokk digal nu rafet ak dëkkaale digal nu moytandiku yu araam yi digal nu ñuy wattoo tuur deret tere nu mbooleem ñaaw yi tere nu wax lu waxi waxi caaxaan tere nu lekk alali jirim tere nu xas jigéen ñu sangewuñi digal ñuy jaamu yàlla moom képp te bañ ko booleeg dara digal nu julli digal nu asaka digal nu koor lii de lanu digal ñu dëggal ko gëm ko topp ko ci diine jumlu woo jële ko ci yàlla di jaamu yàlla moom képp te duñ ko boolee teg dara lam araamal ci nun nu araamal ko lamu nu daganalal ñu daganal ko loolu yi bañ ta nekkee sunu mbokk yi di jalgati jalgati sunu diggante ñoom dina bundu xataal mbugal nu fitnaal nañu nu ba mënatuñoo jëfandikoo suñu diine joojee ngir bëgg ñu dellu ci jaamu xeram bàyyi jaamu yàlla ak bëgg loolee nga xam ni euh, moom moom lañuy daganal ñoom ci ay ñaawteef ñu fekk leen ci di ko daganal ni ñu koy daganale biñ demee ba not nu nag tooñ nu xatal nu dox suñu diggante ak suñu diine moo waral ñu génn ñëw fii ci sa dëkk bii dañ laa tànn nag ci keneen maam ñeneen euh, adduna bi bari na ay buur waaye yow lañ tànn xeemee ma dëkk ak yow yaakaar yit ni kenn duñu tooñ fi loolu la jaafar ibnu abi taalib tontu najaasi dem ko laaje najaasi yi ni ko ndax yor nga yor ngeen dara ci lim leen andil ci ay wax yu jóge ci yàlla jaafar ni ko waaw daat koy ja mu ne jàngal ma dégg mu jàngal ko njëlbeenug kaaf njëlbeenug suuratu Mariam kaaf ay yaa ayn dikru rahmati rabbika abdahu zakariya ayis naadi rabbahu nida noonu la ko jàngee ba àgg ca fa xamalathu fantabadat bihi makaanan qasiyan fa ajaaha almaxaadu ila jizci naxla qaalat yaa laytani mittu qabla haada wa kuntu nisyan mansiyan ba tariwaale xissa bi nga xamante ni yàlla nettali na ko ci Mariama ak ni Isa juddoo ak ni Isa waxe ak ñoom ci kaw ci kaw kaw lalu laltaayu euh, liir bi ndax bi Mariama amee doom te fekk ne dafa doonoon jigéen ju féete woowoon di bale jàkk yi doon ko baax a baax léegi ñoom ñëpp euh, bam dañoo waar ndax bi muy am doom sax àgg na ci ni ak neexoon ma bañoon a am ak neexoon ma doon ku amutoon bañ fàtte ko daal di jàq lool ci nan lay déclaré doom ji ngir am na ci kes waaye bi mu ko jëlee ñëw ci mbooloo mi ñu ne ko yow day bett nga yow moo si yow ibnu ibnatu imran nii nga daan demee di bëri ci jàkk yi ñu jàpp ni nit ku baax nga nekkee oo ay caaxaan nga fi nekk ba yaa ngi nii di indi indi fi doomi njaaloo nii léegi nag foofu la yàlla waxloo sayiduna isa mu mu wax ni inni abdullahi aateni al kitaaba wa jaalani nabian wa jaalani mubarakan aynama kunt wa awseni bi salaati wa zakati ma dumtu xayan wa barran bi walidati wa lam yajaalni jabbaran shaqiyan wa salaamu alayya yow ma walittu wa yow ma amuutu wa yow ma ubaasu hayyan bis bi bi Isaa waxee loolu nag te dib liir wax ko ci kàddu gu leer gu ñëpp di dégg nag ñay gëm daal ni kon doom yàlla la mu jax ñi xamante ne dañuy weddi continuer seen weddi léegi nag lii bi ko jàngee ci kanamu najaas yi dañoo gis bët yi dafa daal di xam mu tàmbalee joy bi mu àggalee mu ne ko seen yonente bi mu jëlee ak fa Isaa ak Muusaa jëlee woon benn porox ndoll la ñu bokk fu ñu jëlee daal di wax ñii nga xamante ne ñooy mbooloom Quraysh ni leen dem leen seen yoon ñi bàyyi leen leen jotewuñoo ak yéen dara noonu la wolbatee ñooñu ñu dellu kon loolu mooy li dox diggante Jaafar ibnu Abi Talib ak eh, Amr ibnul Aas ñoom ñi ñëwoon ngir yàq si seen diggante ak eh, Najaasi Najaasi yi di leen daal war ma jeneen war ma ju yees digal ñooñu ni leen dellu leen ñu continuer bëgg a jël dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom dañoo mujj àgg ci bëgg ko rey ndax Abu Jahlin dafa woote am ndaje ni na ngeen daj woo Muhammad ngeen def benn waxtaan bu ngeen di waxtaan man danaa yéeg ci kaw garab gi wut daju réeréy woo xam ne dama koy wàcc rek mu daal dañ kaw bu ko defee léegi waxtaan wa du àgg mu jeex te day mel ni am rëcc rek mu dal moo xamante ne kenn du ko mën a lijjanti wax nañ ni benn bis ñëw ci kaaba gi mbooloo wër ko kii poñe ko poñe ko ba xaw a xerandi baat bi Abubakar di jooy di leen wax ni leen ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah kii dafa poñe naa ko ndax yaa wax ci xelam bi nangam mu di leen tontu tontu yi dal waaw maa ko lépp loo ci xam ni moo ko wax wala yàlla wàcce ko ci moom muy ayab alquran buñ ko ne yaa wax nangam daan leen waaw maa ko wax Omar léegi Abubakar di jooy waaye mënul leen dara di leen wax ataqtuluuna rajulan añ yaqula rabbi allah wax ne ni benn bis dafa toog ci wetu kaaba gi moom yonent bi sallam Uqba ibnu abi Muayt daal di ñëw daal jël mbubam wékk ko ci loosu yonent bi sallam xerandi ko ba bët yi di bëgg a gën moom Uqba ibnu abi Muayt def na loolu ci jamono yooyu nag ba tey Abu Jahlin li sabab jébbalug euh, Sayyidna Hamza li ko sabab ci biir tartar yooyu yonent bi daan jànkonteel ci la jàmbar jàmbaar jooju jëbbalu muy Sayyiduna Hamza la sabab jëbbalu ga it mooy Abu Jahlin dafa romb yonent bi benn bis mu nekk ca Safa mu lor ko mooy dafa ñëw di wax ak moom di saaga wax ju bon ju ne mu wax ko ko waaye yonent bi tontu ko mu jël aw doj ni ko ko tël xaañ ko ba ko xaañee ba deret yonent bi di tuuru te booba am na jenn jigéen joo xam ni euh, surgab Abdullah ibnu Judaan la mu ngi nekkoon ci këram tiim safa di ko seen di seen loolu bi xam sa seen mu nettali ko ko te booba am sa dafa rëbbi woon ba ñëw bokk ak euh, ak fettam nii bi mu ko nettalee li Abu Jahl def xam sa mer am sa sax ba muy merit booba merum ak mbokk la doon mer ñu bokk gutoon ci diin daal di mer ràngoo fett gi dem ba ci Abu Jahl mu dal ci kawam wax ko lu ne ni ko léegi sama doomi sama doomi doomi mag ji ngay sama doomi rakk ji ngay def lii tama taman ci diineem laa bokk baatu man ci diineem laa bokk la wax ba mu koy wax sax dafa mel da ko rëcc mu wax ko waaye la tax mu mu doon défendre moom mooy mbokk ak mbokk rek la doon défendre waaye duna ko doon jël waaye nag baat boobu mu wax far na euh, lu mel ni ding te dikkal na ko ci mu far dëggal ko far bi mu ko dëggalee kon njëlbeen gi dafa mel ni am rëcc la ma doon erreur far ginnaaw bi yàlla ci boppam tàbbal leerug islam ci kon jëbbalug sayid naa xam euh, sax noonu la dane waaye bi mu ñëwee yor fett gi man yaakaar na sax jot naa xaañ abu euh, abu jahlin moomu léegi am mbooloo jóg mu bokk ci niti abu jahlin mbooloo jóg mu bokk ci banu hashim ba ab ger nar faa tàkk abu jahlin leen bàyyi leen ko ndax maa saaga maa maa gaañ nag doomi doomi doomi mbokkam kon bàyyi leen ko waaye kon islaamu oh, sayidna Hamza kon foofu la jaar mu itam ci jamono yooyu ci la Omar ibnul Xataab jëbbalu ci jamono bundu Xataab yooyu ci la Omar ibnul Xataab euh, jëbbalu ci yonente bi moom itam sallallahu alayhi wa sallam moom itam euh, riwaayaat yi dafa bari ci liñ wax ni moo sabab mu jëbbul yu bare bare bare la bu ñu taanee benn rek yi ci euh, ñuy nett li yëpp ndax dafa dañoo indi ay riwaayaat yu bare bare yoo xam dañuy wax ni moo sabab Omar jëbbul waaye dañuy wax daal moom Omar dafa doonoon ku tar ci nu mu noonu woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa génn ràngoo jaaseem ni nag tey jii moom Mouhamed moom rey rek laa laa bëgg ci moom léegi bëgg ko faagagal ba dootu fi nekkat dootu fi amati dara ku ñu wax Naim ibnu Abdillah an al adawi an naxaam an al adawi dajeeg moom wam dajeeg moom ni ko ana foo jëm yow Omar mu ne ko Mouhamed laa bëgg rey mu ne ko boo ko reyee ndax yaakaar nga ne danga mucc ci bani Hachim ak ci bani Zahra te fekk rey nga Mouhamed mën ngaa rey Mouhamed ba nag mucc ci ñaari giir yooyu Omar ni ko ni ma la gisee da ngaa doonub saabi u booba ku ma ku ma sa dugg ci diine yonent bi rek dañ naan diw saabi u la dugg na ci diine yi saabi oon yi gis da bàyyi sa diine yi ja nga nekkoon kooka ko ndax mën a la tegtal kiimaan yow Omar ne mu ko ah mu ne jigéen ak sab goro ñoom ñëpp dugg nañ ci diine jooju ngay wax bàyyi nañ sa diine ji ngay woote Omar daal di mer dem ba ca ñoom ñaar ñi ñu ko wax mu fekk fa xabaab ibnul arat mu yor ab téere boo xam ne taaha moo ci nekk di leen jàngal alquran taaha ma anzalna alayka alquran di leen jàngal alquran fekk xabaab di leen daan seet ay heure yoo xam di leen di jàngal daal di rocc ko dem waaye lépp nag ci biiru làqatu lay doon Omar bi ko kii nett leen ko sañ sa mbokk ak sa goro ñëpp jëbal nañ mu ñëw di seet si ba xam wér na wala déet fekk fa xabaab ibnul arat mu di leen jàngal alquran xabaab bi mu déggee Omar di wax mu gaaw Fatima mi doon mbokkum Omar yoroon téere ba mu yoroon it mu gaaw làq ko biñ ni Omar a ngi ñëw te fekk Omar bi muy jege nekk bi dégg na Xabaab ibnu Arat muy jàng bi mu ñëwee ni leen li ma déggoon léegi lu doon ñu ne ko dara dinañ waxtaan rek mun leen ni ma leen gisee da ngeen a wàcc wàcc diine seen baay ak dem doon ay saabiyoon dugg ci diine saba gorab gorab Omar bi nga xamante ne moo yoroon mu rakkam jigéen ni ko yow ni ko Omar waaw bu dëgg bu fekkee ni léegi dëgg dafa nekk ci jeneen diine ju dul sa diine ji nooy def ba mu ko waxee rek Omar Wade ñëw dal ci kawam dëgg ko dëgg ko joggi ko joggi ko joggi bu tar ba mu joggee ci kawam rakkam ji jigéen jooju dal di ñëw yëkkatee ko ci kaw jëkkëram ji léegi Omar dóor ko bi mu ko bi mu ko dóoree euh, mu dal ko ci kanam ba mu nàcc waaye loolu bi Omar wëlbati koo xool gis ni gaañ na rakkam ji jigéen joju mu mel ni kersa def ko dikkal mu daal di rus ni tekk ba mu jaag mu ne wan leen ma téere bi ngeen yoroon ma xool ma jàng ko mbokk mu jigéen moom mu doon ba gaañ ko ni ko kenn du la ko jox ndax sobe nga te walaa yamassuhu illal mutahharun téere bi kullul ku laab du ko laal ni ko bu fekkee bëgg nga ko laal jógal nga dem sangu ji Omar daal di jóg ci saase dem sangu ji ñëw ñu jox ko tere bi mu jàng bismillahi rahmaani rahim daal ni di di tur yu tey yu laab la daal jàng taaha ba agsi ci innani ana allahu laa ilaha illa ana faabudni wa aqimi salaata li zikri omar daal wax ju rafet ji ko tedd mosuma ko gis ana muhammad fu mu nekk bi xabaab déggee nag loolu omar wax boobu mi ngi làqatu woon ba kenn gisu ko bi mu déggee Omar jàng téere ba gis ne yëf yi alxuraan bëgg na ko ba mu naan tekki leen fu Muhammad nekk xaba ah, mu daal di génn mu daal génn daal ni ko ab yaa Omar yaakaar naa ne yaay doon ñaan gi yonte bi ñaanoon ndax yonte bi dégg naa ko muy ñaan ni allahumma a'iz al bi Omar ibn al aw bi Abi Jahlin ibni Hisham ni ko yàlla yaakaar naa dangaa doon ñaanuk yonente bi gi doon ñaan dax déggoon naa yonente bi day muy ñaan yàlla yàlla na nga terale islaam kenn ci ñaari Omar yi muy Omar ibnul Xataab wala Amru ibnu Hicham te muy Abi Jahl yaakaar naa ne yow mii yaay ñaan yonente léegi Omar daal di jël jaaseem daal di koy ràngoo daal di ànd ak xabaab moomu bañ si ci bunt kër boobu yonente bi daan nekk muy kër al arxam ibnu abil arxam bi mu bunt bi am ku jóg séentu ci xarañ xarantey bunt bi ay xar bunt bi gis ko mu ràngoo jaasee moom Omar mu dem wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa mbooloo ma nekkoon ci biir kër ñëpp daje ci wetu yonente bi am sa ni leen lu mu doon ñu ne ko Omar la mu ne Omar ñu ne ko mu ne leen ubbil leen ko bunt bi bu ñëwee indi fi aw yiw ñu jox ko ko bu fekkee aw yiw la bëgg ñu jox ko ko bu fekkee dafa ñëw bëgg aw ay ñu rayee ko jaaseem jëm yor loolu Hamza moo tontu loolu ni ubbil leen bunt bi mu ñëw bu bu fekkee aw yiw ko tax a danañ ko ko bu fekkee aw aaya ko andi nag jaseem ji mu yor ci lañ koy rey te booba yonente bi sallallahu alayhi wa mu ngi ci biir ñu di ko waxi bi wax yu gi jaaxee mu génn ci Omar dajeeg moom ci doj wi daju safa moom yonente bi mu génnee dafa génn génn jàmbaar ndax dafa ñëw dal di jàpp ci poñe poñe poñe Omar jàpp cati mbub yi poñe ko jàpp it boole cati mbub mi ak euh, gàddukaayu jaasi ji poñe ko poñe bu dëgër daat koy xëcc ne ko ndax ndax doo yam yow Omar ndax ndax da ngay continuer ba yàlla wàcce ci yow gàcce aku tiis la daloon Walid ibnul Mughira daal ne yàlla haza Omar ibnul Xataab loolu yente ma ko allahuma haza Omar ibnul Xataab allahuma aiz al islam bi Omar ibnul Xataab fa xaala Omar bi yonte bi waxee ñaan googu bi mu ko ko Omar dangaa bëgg a continuer ci li nga nekk ba ci sa kaw bala daloon Muxiira dal la euh, Walid ibnu Muxiira dal la daan yàlla kii Omar ibnu Xataab la yàlla yàlla na nga terale islam ci Omar ibnu Xataab Omar daan ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wa annaka rasulullah foofu la seere ni seere naa ne yàlla seere naa yow mi yonente bi yàlla nga di jébbalu waa kër gépp kàbbar allahu akbar ñëpp maa se wax allahu akbar ba waa jàkk ji am kattan ko kenn ñu mënut a moom coow lu bëree bëree bëri jébbalu ko Omar indi ko ci biir yéefar yi indil na eh, ak doyadi ak toroxtaane jébbalu Omar indil na jullit yi tedd nga ak mbégte mu réere kon loolu ci liñ nettali ci jébbalu Omar ibnul Xataab ci la bokk kon loolu mooy jébbalu eh, Sayyidina Omar radiyallahu anhu Euh, léegi kon ci bunduxataal yooyu ñu doon bunduxataal jullit yi ak lañ ci jànkoonteel ak li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daj loolu lépp des na ci déggee ay déggin yu bare bari ndax danañ ci déggee ni adduna lu mën a doon ci adduna la koy taxawal mooy ak dëggu akuk dogu ak muñ balaa dara mën a taxaw nit ki dafay dëggu te dogu ci te muñ ndax yoonante bi sallallahu alayhi wa ci la jaar ñi nga xam ne ñoo ko jëkk gëm ci saxaaba yëpp foofu lañ jaar danañ ci dégg it ni dëgg buy tàmbali mën naa sew waaye yàgg yàgg dafay dijj ba nit ki bu nekkee ci dëgg lu mu tuuti tuuti ak lu mu ca néew néew doole bum euh, deltu gannaaw euh, loolu danañ ko dégg ci doxin woowu nga xamante ni am na ci euh, diggante Quraysh ak yonent bi ak noonu mbooloo di ñëwee ndànk par ndànk ndànk par ndànk danañ ci dégg it ni euh, comme foofu yonent bi jaar ku jógaat jëm ci yoon yàlla it fokk foofu ngay mën jaar muy na nga amuk dëgg gu sukkandiku fenn ak dëgg nag la ko tàmbali woon mooy ak waxyu comme yonent bi sama def ko waxyu mu ni ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi moom dañ ko waxyu mu gëm waxyu gi jullit yi gëm waxyu googu léegi ci kaw gëm-gëm bu dëggu bu dëgër ci la nit mën teg tànkam pour ñeme ci lim nekk kon loolu lépp danañ ko dégg ci euh, dig digal boobu nga xam mooy digal digalu bundu xataal yooyu ñu doon bundu xataal saxaaba yi bundu xataal ko yonente bi te bis bu set muy gën di dolli euh, loolu dëgg rek moo ko mën a may nit kon yal na yàlla dimbale ci xam dëgg ak jafandu ca dimbale na ci xol buñ mën a muñee tartari àdduna euh, te sax ci ak njub te lii nga xamante ne moom lañuy jàng ci seera yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu doon eh, loo xam ne yàlla daf ko yeesal ci suñu jamono léegi bii nga xam daanaka xaw nañu àggaat ci jaahiliya gu jëkk ga Sëriñ Tuubaa ñëwoon di ko yeesal eh, yàlla def mu doonaat ak yees goo xam ne li yàlla bëgg ci jaamam yi dana taxaw li yonent bi bëggoon ci xeetam yi dana taxaw li Sëriñ Tuubaa moon ci xeetu yonent bi ba di ko taxawal dina taxaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu